Aujourd'hui, on est samedi le 26 euh, août 2023. Donc, comme nous le disons actuellement, nous sommes circulation. Comme ça a été édicté par l'opposition du Sénégal à 20h30 pour Sénégalais, ils ont un concert de casserole. Mais actuellement, nous sommes 20h30, mais qui sont ben bruit. d'habitude doon baaxoon un doon euh, concert de casserole dañ doon euh, def klaxon automobiliste yeeg a dañuy def klaxon mais pour le moment déggaguñu dara actuellement nous ngi Sacré-Cœur justement si côté BRD bi euh, dañuy dal di dem rek xool continuer def ben round bu ndaw rek xool ndax concert de casserole bobu nga xam te ne opposition bi euh édicté na ko woon pour population bi def ko ñom donc actuellement ñu ngi cité gui euh un peu si euh, rond point bi sori wul lolu donc euh, dañuy continuer rek comme ni ñu ko waxee def benn tour pour l'instant nag dégguñu ben bruit. Euh, dégguñu ben bruit wu casserole dégguñu ben bruit euh euh klaxon donc euh, dañuy japp né rek peut-être euh, information bi jallul wala mais ñu ngi nii ci biir quartier yi biir Sacré-Cœur biir Cité Gorgui dégguñu benn bruit amul ben bruit casserole bu ñuy dégg fi ci Cité Gorgui fi silence total la comme désert wala boo comme cimetière voilà non la ko mëna a dig waxé de casserole, pour l'instant, ça ne marche pas. donc gis ngeen ko noonu ñu ngi doon tout à l'heure ci kër Sonko cœur leaderu euh, pasteur bi donc même chose ci quartier amul un bruit Ni comme nous ma ko doon waxee sànq euh, fii cimetière la déggoo benn bruit euh, amul un bruit casserole ni klaxon ni quoi que ce soit fii daal dafa calme ay gardien ngay romb ñu toog seen kër daal di def seen liggéey rek mais euh, amul dara donc ñuy continuer def tour fii ci Tegor gi pour xool ndax concert de boobu nga xam ni opposition sénégalaise bi ñaanoon nañ ko population sénégalaise comme ni ñu ko doon defee chaque jour comme ni ñu ko doon ndax mu ngi doxam mais lu ñu jot a seetlu daal fii ci cité góor gi euh, amul benn bruit donc euh, ñu ngi continuer di dem si ron point bi nga xamante ni moo nekk cité góor gi pour xool situation bi demee. mais dès à présent dès à présent mën nañ leen wax ni situation bi fii euh, dafa calme loolu lañ jot a donc gis ngeen ko noonu ñu ngi daal di euh, jubal ci rond point bi nga xamanteni mo nek nekk cité góor euh, donc comme niñ koy leen ko waxee sank rek même chose hein, même chose fii amul benn bruit dans son ensemble automobiliste yaa ngi circuler circulation bi ngi dox normal mais do dégg ben klaxon donc rond point baa ngi noonu yéen a ngi koy séen ci cité góor gi voilà situation boobu moo am calme moo règne régné voilà silence de cathédrale moo am pas de concert de casserole pas de bruit pas de klaxon comme nous ñu ko par rapport ak yeneen concert de casserole yi nga a ne opposition bi wala leader opposition bi moo ko doon woote bii pas nag peut-être peut-être lu mu amulee ampleur moo Euh, leader opposition bi moo ko doon woote maanaam euh, euh, leaderu Pastef ex ex parti Pastef donc euh, moo di Ousmane Sonko mais bi nag waa 24 ñoo ko woote peut-être moo tax amul jotul am ampleur noonu mais fii lu ñu daal jot a nemmeeku fii si Teggoor gi amul benn manifestation bi nga xamante ni day teg day wane ni concert de casserole la def. donc euh, ñu ngi nii di acheminé wu ci côté VDN bi euh, ñu dem si yoonu si VDN bi euh, rond point VDN bi jugee entre cité góor gi fële ca VDN ba yoon boobu lañuy ñëw jël moom la ñuy ñëw jël nii daal di fa yegg xool mais pour le moment dégguñu benn bruit bi tekki nii concert de casserole am na fi wala bruit buy jëm ci wàll woowu. actuellement ñu ngi si rond point bi nga xamante ne moo euh, ñu ngi si euh, pont euh, cité Gorgui bi bi nekk ci côté Sonatel bi donc gis ngeen noonu fii tam même chose même son de cloche amul benn bruit amul benn klaxon amul benn manifestation par rapport ak yeneen jours yi yeneen par rapport ak yeneen moment yi nga xamante ne dañ concert de am da doon dégg automobiliste yi klaxonné dégg ay nit ñi yuuxu fii de part et wala ngay dégg ay ay ay casserole wala ay jit ñu koy tëgg mais amul loolu voilà ça maintenant donc actuellement on est à un peu plus de 20h30 depuis le heure au concert 4 heures voilà donc euh, actuellement nous y euh, au point où euh, sacré cœur euh, on est un peu plus de 20h40-45, 15 minutes après le concert Casserole pour pour débuter. donc euh, même son de cloche ah fii ci rond point bi amul benn manifestation d'habitude da nga daan dégg nag euh, automobiliste yi di klaxonné euh, motardiste yi nag même chose mais fii nag silence cathédrale comme ni ñu ko waxee woon sànq fii même chose nit ñaa ngi dox seen soxla nii di jël oto di dem donc voilà mel na ni daal nit ñi yéeguñu lu xew looloo am fii ci Sacré Cœur voilà mu ngi noonu.